D'accord, il faut qu'on change fen une manipulation yoru réew wax nga ko léegi-léegi jëmale ko ci manipulation ak populisme bi nga xamante ni moom lañ jëlee D'après, mi dafa mel ni dañuy jëmaat ci échéance électorale ñu peux mhm. maintenir cette même fin, ak cette même manipulation parce que tey suñu euh, élevé chiffres yi nga xamante ni tey ban conséquence ak ban danger le mettre en péril le Sénégal jëmale ko suñu ay partenaires par rapport ak crédibilité bi nga xamante ni Sénégal daf ko yàgg tiise ba noppi daal di koy cultiver à travers l'international mais xam nga Tange euh, bu gars yi di wax partenaire ñu bari dañuy xool en fait les grands canaux la ñuy xool mais mm-hmm. Tange xam nga ki jógee rek benn Tange bu ñëw investir ci biir réew mi c'est un partenaire parce que ñaata nit la la jëlee mm-hmm. mais Tange xaw ma ba xam def ngeen benn remarque six mois yi su ngeen gisee ay sociétés yu bëri dañu nekk parce que c'est-à-dire benn amuñu confiance par rapport ak état bi fi am. et que benen bi loolu moy solo la déclaration de la politique générale gis nga da nga koy yéexal yaakaar sa bop nga koy def alors que c'est-à-dire ça rassure pas. les les investisseurs les partenaires. mooy à un moment donné ils se disent que non attends rew mu xamul fan la jëm. rew moomu do fa duggal sa alal déco tek et que benen bi gëna a catastrophe je le disais dama don wax né na gaa yi moytu balaa ñuy dugg en mois de juin te defuñu ko au plus tard mooy suñu duggee septembre. parce que xam nga boo duggee juin yow da ngay jàpp ne sa at jeexagul mais ki nga xamante da nek ci entreprise bi atam dafa jeex fay commencer at bu bees bailleur bi boobu lay commencer at boobu lay def ay plan d'action mais ci bir plan d'action boobu bu xamul yow fan nga jëm est-ce que dina mëna am ben investissement bu grande bo xamante dina ko def pour mëna la et que lolo tax tey ñu gis ñu bari dem nañ fayit ñu bari ñu ngi tëj lolo nak moy mooy ab rew xam nga xam nga ndeysaan nak euh, quand quand le gars disait que ne le Sénégal d'aujourd'hui c'est un pays bu nek en ruine ça m'a fait penser à beaucoup de choses yo xamantene tay quoi à la fois parce que Tange naka nga jangaté Sénégal bu en ruine le président de la République a fait plus de 12 voyages. Mm-hmm. et tous ces voyages nous coûtent plus de 100 millions. ce qui fera que ait un milliard 200 millions qui ay voyages mm-hmm. le premier ministre en avait fait 9 voyages et tous ces voyages pareils légui Tange yow fait les voyages moy dëkk bu en ruine et pourtant ñom lu mu dédé yak gum nañ plus de 3 milliards yo xamante tay mënon na investir ci walum éducation mënon na investir ci xëyu ndaw ñi mënon na investir ci jappalé famille mënon na investir ci feneen ak feneen ak feneen mënon na teg un grand commencement pour qu'on puisse dire que au moins l'État existe mais par où vous avez senti l'existence de l'État ci bon domaine amul fenn fo xamante rek Sénégal bu gëm yalla bu wax dëgg ci amul benn domaine bu santé sentir ne serait-ce en fait c'était des choses que Macky Sall avait fait ici des choses yoo xamante ne budget bi jàll na lépp on a tout conclu et que tey yooyoo nekk di jeexal mais je me dis que ne nañ ma wax fan la ñu le gouvernement actuel am benn investissement boo xamante ne def na fa ñu mën a wax ne sax ay gulet commencé nañ ci yëf yi. si la la ñuy attardé sur ay fen ay kàcc ay sos ay attaqué aussi des personnes comme le cas de ay Lat ay xam nga xam nga je le disais à un quelqu'un j'appelle Lat job tans nga baal ma ubi bo boobu parenthèse ah. pour mon ay japp Lat job ay jàppoon par exemple Ba jaxate ay jappon imam tans lo du priorité xam nga japp kan mo priorité nañu japp Aliou Sall six mille milliards lañ ko ji wa mais tans six milliards budget Sénégal presque 7000 milliards mooy budget. milliards égal budget Sénégal 6000 milliards égale à 92,4 pour du budget Sénégal mais Tange dama ne que 6000 milliards au Sénégal mais ngay y a ay imam ndaw moo lay ay la ay kàcc la ay sos la kooku ngi dund ay ñu ngi fi il fait ses activités mais ce qu'on ngi dox que dem moi sénégalais yi ñu ubbi seen bët kooko ngi dox imam Ndao bu poser une question juste une question. est-ce que c'est pas cette manque de démocratie bi ñu gis recul démocratique manque de liberté d'expression parce que c'est une dictature en fait am emprisonnement yi ñu gis yëpp maanaam mën nañ jàpp liberté d'expression la ak démocratie ah, le cas d'Aba Diakhaté soulevé nga ko un commissaire Keita qui fait une un commentaire sur des faits ñu n'y ko pas ko arrêter. Ahmed Suzanne Camara bi naan li nga wax ak li am du

dafa soxla ay nit yoo xamante ni. ay lanceur d'alerte ay lanceur d'alerte suñ gisee dëgg nañu wax. Hmm. mais dëgg boobu amul ku mu am ndey ak ku mu amul ndey. mais dëgg boobu ci moom la njëkk a dal parce que Bah Diakhaté daf ko ne sa déclaration de patrimoine am na benn kër boo xamante ni. Ah, wane woo ko ah. ci alors que am na papier bu wane ni ko yaa ko jaay Cheikh Diba. et que et que xam nga li gër te weddi wuñ ko ah, xam nga li gëraaw hmm. benn weddi wuñ ko. Bah a montré des preuves palpables Avec le notaire. notaires a kon donc au moins si vous wàllu administration Bah a raison et que quand on ne demande pas quelqu'un qui a raison sur le plan juridique jusqu'à présent donc il a raison kon ceci veut dire que tout ce que Bah disait c'est vrai xam nga que Bah Diakhaté dañ koy topp ci xam nga maanaam c'est hein. parce que quand ils ont su que ne est Diakhaté tey lii dit wax ni yëpp dëgg la dañ lay et tout ça c'est ça quand vous allez ci ay président ak wala ay dañuy xamné yow fi buñ la fu mënu daan dañ lay daané leneen mais xam nga Bah Diakhaté c'est un lion un grand monsieur que je salue au passage. mais en matière de communication est-ce que tay mom waroon na daan Bah Diakhaté ci walu offense bo xamanteni ba Bah Diakhaté a raison. parce que mom ci opposition dafa yàgg xex li nga xamanteni moy article 80 vingt jëm ci offense au chef de l'État. nee nañu loolu du ay yëf yo xamanteni ni dañ ko wara maintenir en démocratie est-ce que tay mom waron nako ko nangu. xam nga Tange euh défaut de communication xam nga fa la commencer waruñu won jox solo li ba Diakhaté wax mhm. pour mo wax la manam déjà ñom dañoy yok quota ba Bah ben mais ñaareel bi ils nous ont montré que ne ba Diakhaté de par ce slogan baatu deug c'est un quelqu'un bo xamante nitu deug la et que képp ku demoon ci atté mu ba Diakhaté di nga xam ki nitu deug la mhm. parce que lépp lu ba Diakhaté waxone daf ka waxat devant la barre mais avec des preuves yo xamante ne yu palpables écrits noir sur blanc avec des signatures yo xamante c'est bien administré xam nga lay man je me suis sax même posé une question parce que bi procureur gisee ba Diakhaté def ak numéro notaire bi et tout ça pourquoi on n'a pas appelé le notaire ouais. mais ceci voulait tout simplement dire que ne Bah tu as raison c'est-à-dire xam nga nag maanaam léeg-léeg kilifa dañ koy sagal man loolu laa jàppoon rek mhm. faut dañ koy sagal dañ koy sigal. Mhm. mais en ce qui concerne le cas de Bah Diakhaté c'est quelque chose boo xamante ne moo njëkk a wane ne dëgg-dëgg mhm. ay sàcc ñoo ñu jiite parce que xam nga temps boo waxee ne danga ngaa pour jële ji ñi nga xamante dañoo jël soufu Sénégal yi mhm. def ko seeni momel yow ñu gis le simple inspecteur impôt domaine nga xam nga temps il faut que ça soit clair simple inspecteur impôt domaine làkkatu juuti la il faut pas que ñu grand def affaire bi ben yef bu grandiose hein. inspecteur impôt domaine juste parce que le nom inspecteur est complété bu satchul bu jëlul lu momul inspecteur impôt domaine mun na liggéey pendant 10 ans du nek milliardaire non temps pour salaire bi am la wax dama inspecteur impôt domaine bu satchul bu plus de 10 ans du nek milliardaire salaire bi de 300 000 euros, mais augmenté en 2017 Oui, xam nga gagné 500 000 mais xam nga gagné 500 000 jël 500 000 yëpp yóbbu ci banque am nga ay frais am nga des choses yo xamantene tay tey ak réalité dund. ak dund ak ñaari soxna. ak ñaari soxna et tout ça wa ok mu leen la ñu war a ñaari soxna bu temps daan dépassons cent cinquante mille yow trois cent mille ngay dépensé say transport say yëpp affaire en fait yenen yi nga xamantene day am nga ci dugg nek nit bo xamantene peut-être nitu nit ñi ngay tout ça Tange xam nga li jar wax moy dafa amone ben pas et que nga may ma parenthèse ben pas bu fi musoon wane muy wax né ki di euh, le premier ministre. Ousmane Sonko. daf ko sàccaloon ay terrain la famille Blondin. la fa merci mais xam nga temps li gëna catastrophe grave ci yëf yi pour que affaire boobu ça m'avait choqué góor gi fay japp en pleine émission jàpp yëkkati kaamil alxuraan. tek ci wat li gëna fort Ousmane Sonko sàcc la daf ma jaay doolé mhm. kon ma yaakaar Bassirou Diomaye Diakhar fay Fimu mu imam daw bu poser question kase fi mu ba jaxaté bu poser question kase bu doon jub jubal jubbanti ñaar ñooñu c'est des citoyens muy Ousmane Sonko ak Paa bi dañ leen waron teg devant la barre dindi lépp loo xamante ne day mbubbum kiiraayu Ousmane Sonko teg ko ne pour ron ko ne kaay seetal sa bopp parce que yaay ku sell kii dafa am benn slogan ñu la may wala benn étiquette ñu teg sa ndodd mooy yaay ku sell ki kon yow yaa war a gën a mais ça dañ ko cest à dañoo jël seen tànk dëgg si mooy yenn yëf yi mooy ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey stance la seule chose qu'on va comprendre que mooy ñi ñu jiite man dama gëm ne ñoo dàq sàcc ñi ñu jiite ñooy ay fenkatu réew mi ñi ñu jiite ñooy les manipulateurs ñi ñu jiite nag tey li askan bi di dund ci metti tak nakar ak tolof tolof ñom ñoo ñu ko yóbbee woon ñoom ñoo ñu ko teg mais attention moy ñun ñi ñu jiite bu kenn daw say responsabilité parce que ñi fi nek tay moy 53 yoy cent yooyu donte nekkul population wu Sénégal yépp mais taux électorat bi 53 yoy tas il faut qu'on leur rappelle que ñom ñoom ñoo ci fal nit ñi kon ñom no bu sikkim lakkandoo ku njëkk yuux rek da nga ragal pour man ñom ñoo wara tok tey waruñu woon jël gaal gi dama ko doon wax si yeneen émission yi damay wax ne képp ko jël gaal gi boo deewee ñaw laa lay wax parce que yéen fi jëlee nit bu doon liggéey fal fi ñoo xamante ne ci ay fen ak kàcc lañ fi toogee woon la manipulation lañ fi toogee woon donc au moins pour man tey war nañ mun a taxaw ñoom ñëpp ñu toog jàppale ñu fi toog ñu defar réew mi. d'accord.